yaa seen mandataire mandataire Ousmane Sonko plutôt Ayib Daffé ak son avocat maître Ciré Clédor Ly jaabante nañ ba man maa ngi koy masawu coono sax paa bi maître Ciré Clédor Ly dem na fi DGE Sénat CDC euh, non ay moom moom moom moom comme li ñu koy tooñee sax ju li ma koy tooñee sax ne ko joolaa nga moo tax waa bi ñu waaw mais mais gis nañu wër nañu foofu ba dem ba ci ministère de l'intérieur lépp lépp tere nañu fi mu toll nii malgré décision de justice bi nga wax ñu réintégré réintégré Ousmane Sonko sur les listes électorales bu ñu demee ba ñu yegg ci cappaandaw gi itam réinté réintégré wuñ ko qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors. xam nga euh, Ayib wala tonton Ayib li mu def ak euh, maître Siré ak euh, huissier de justice bi bu leen neexoon sax mën nañ ko bañ a def. Hmm. yoon moo àtte yoon yoon moo àtte boppam administration moo deful liggéeyam déjà ca nañu génne président Ousmane Sonko ca liste ya jaarul yoon d'abord d'abord ba pare nëbb ko ba pare di def seen théâtre bu mat sëkk ngir Ousmane Sonko ba ñu jot notification bi la moo tax. nëbb ko cest à yow da nga ne da ngaa nit ki par contumace war ko ko notifier wala signifier ñoom ñoo xam terme yi. mais di wër wëraan ngir bañ ko ko notifier bañ a signifier xam nga la moo tax loolu. lan moo tax mais parce que soo ko ko defee. Mm-hmm. mais ci la nit que di dooraa jóg def dem defi recours day am délai. Mhm. benn n'est-ce pas. ñu bañ mu jot ci ndax munoo ne parce que damaa damaa jëlale la fekk contumace bi moom. bañ ko bari carré ñoom lañ xamoon ne contimence bi jeex ndax xam nañ fi waa ji ne. ñu kon ne di dof wëlbati jàpp ko teg ko loxo. génne droit bu bees. changé waat waaw maanaam Ismaïla Madior lam doon jàngal étudiant bi wëlbati ko ne leen loola baaxut la ma leen jàngal ci at yëpp baaxul de contumace bi jàpp naa ko certes mu ngeeg man dama koo àtte te gisuma ko maa ngi continuer di ko wër waaye Ousmane Sonko bi ma jàpp bokkul ak Ousmane Sonko bi may wër ndax Ousmane Sonko bi ma jàpp dama koo jàpp ci càccuk téléphone te man usman Sonko bi may wër dama ko àtte ci contumace ci. Euh, corruption de la à jeunesse. donc dañoo xaaj Ousmane Sonko ñaar. mooy droit bu bees bu nga xam ne moom xam naa ne xaw ma nu mu koy jàngalawaatee ñoom ñoom Pa Moussa léegi nag loolu noonu yëpp ñu xam ne seen ay tappale la mais dafa am xam nga président Sonko juriste la ñoom dañuy fàtte loolu. président Sonko. Mm-hmm. avocat am jàmbaar lañ lool waaye dossier bi tamit. joué ci rôle avocat boppam bu baax a baax a baax a baax. waaw mm. ah xam nga dañ leen xam moo tax ba ñuy wër-wërloo parce que nga téye ko nit ki nga téye ko sebi Sébikotane <coughs> walbatiku jàpp téye ko principal di ko faj. Mm. mais nga war ko notifier benn affaire nga nga nga ne këram ngay dem yóbbal ko ko. waaw <laughs> mais Ousmane nekkul. yéeg yëpp ñoom kon décharge bi ñuy wax amul. dama déglu rek. a ca yeggale. bu décharge bi amoon kër gi dinañ dem léegi fekk ko hôpital pour jox ko ko. Ah, moom dem hôpital pour jox ko ko. ne leen wax dëgg yàlla ñun ci ndigalal mag bu Sébikotane la ñuy dox. Mhm. foog ngeen dem ba Sébikotane ñoom ñu jox leen une note wala autorisation ngeen doog kaa indi fi parce que ci toujours ci responsabilité boobu lañ nekk. Mhm. lan moo leen tere woon dem Sébikotane comme ni ko Ayib di defee fu mu war a dem rek mu dem fa ñi dem Sébikotane notifié ko mais defuñu ko walbatiku ne ne ñoom daal finalement dañuy dem daal yóbbu ko sous préfecture xaw ma nuñ ko nuñ ko tuddeeti plateau xaw ma almadi lépp ngir bañ waa ji jot ko ndax lan su ko jotee am na délai pour def recours am parce que ñoom ils visaient la four collusion mais xoolal ni ñuy utiliser état ak justice pour di def yëfu caaxaan yooyu maanaam di di football di jouer ngir nit ki forclos ba bañ na ko ba ba ñuy plaider ñoom forclusion bi lañ doon plaider. moo jiitu moo leen réeral mais booba xamuñu ne Sonko ba ñu ko jàppee ca délai la bind acte de non acquiescement manuscrit signé ko jox ko greffier bi. mais xam na comme xam na ne dafa doy waar yamul ci greffier bi de. Hmm. nu mu defar. ñoom procureur rek ñoom président chambre bac ñëpp jot seen copie loolu mooy dëgg. pour tiiñal leen. waaw kenn du ne yëguma ko. waaw maanaam acte de non acquiescement xam nga lu muy tekki. mooy. d'accord dégg naa ne daan ngeen ma par contumace. waaw. waaye d'accorduma ci daan bi lan moo cay topp euh, monsieur le juriste. kon dimanche ba day naaw ngeen attewaat na. mais El Malick. juge coon. na ci lu gën a xóot sax. ba ko jàppee. ca euh, commissariat la waxama brigade des affaires générales. nee na leen jébal naa leen sama bopp. waaw ah non maa ngi ñëw ci loolu yëpp parce boobu maa ngi fa woon. <laughs> juge bi ku garaaw la. maa ngi ñëw juge coon xam nga lu <laughs> xam nga ñoom tamit nag dañoo dem ba benn seen biir ñu sentir ne ñii kat dañoo nekk di ñu fooye ñun ñun juriste yi ñun magistrature parce que nag magistrature moo ëpp doole ci réew mi de Macky bi ñu ko fole mhm. ñëwul ci Cheikh Ousmane pour waatde wala mu dem ci xalif général nangam pour waatde mhm. fan la fan la waate conseil constitutionnel <laughs> voilà donc ñoom comme ni am na ko ko wax sànq dañoo fooye justice fooye justice dëgg ci pédale bi di def lu leen neex ba jàpp ne mën nañoo def lu leen neex te yàgg naa ko wax dans le plateau de télé quatre-vingt-dix-neuf pour cent des ju magistrats des juges ou des professionnels de la justice ay nit ñu gëm li ñuy def lañ ñu sérieux lañ ñu gëm seen cor seen corporation lañ. gëm seen bopp benn infime partie lañ ci utiliser pour def yenn jeu yi moo tax président ko ba mu leen dóoralee acte de non acquiescement yow jàpp nga ko déjà contimence bi jeex na. ngay siisu mu dóoral la acte de non acquiescement maanaam d'accord ma ci contimence ba deewaat une deuxième fois nga ne du ci daal da ngay forcer quand moo tax nag juge coon ne xaaral léegi ma régler problème bi définitivement fatt fépp comme ni nga wax parce que moom dafa àtte ci àqulaa taala en plus parce que xam nga la moo gën a neex ci affaire bi ñoom dale la ñuy de parce que ñoom même bu recours bi dama atoon cour suprême cour suprême lan lay lan lay wax parce que cour suprême <clears throat> bi muy renvoyé dafa en quelque sorte nangu na ne euh, juge Sabassy Faye compétent na pour àtte nangu na yenn yi mais peut-être motivation juge si fay moo matul léegi incohérence yi mu wax ne moo nekk ci motivation juge Sabassy Faye bi muy renvoyé ci coon da ko koo jox. léegi coon corriger incohérence yooyu. c'est-à-dire que yow da ngaa def devoir. nga rek nga rendre devoir. devoir bi prof bi corriger ko nga waroon a am vingt peut nga am seize parce que am na quatre fautes yoo def. mu corriger ko jël correction bi jox la ko. nga war a defaat même devoir bi pour jox ko Pa Moussa mais vingt ngay am. léegi nag comme ñoom jox nañ ko juge euh, euh, Racine Thion. mais Racine Thione ci motivation yi dafa corriger le conseil wax ne moo matul woon. léegi donc ñoom bu ñuy yóbbuwaatee cour suprême pour lan la pour gagner temps. pour mais xam nañ ne mënuñ fa am dëgg. ba pare la ca neex mooy cette fois-ci cour suprême les chambres réunies ñooy statuer donc te bu boobaa la ëpp ci juge teew yëpp 80 pour cent yi droit la ñuy wax te réew mi fu ñu fi waxee droit Sonko am dëgg ci ñoom ñoom fi mu ne dañoo dem a dem a dem a dem ba réer ci seeni mbir dama ragal nag fa ñu mujjee mooy président Macky Sall ne leen gis ngeen yéen du ngeen ma fonto bi yëpp yéen ma ci dugal nu golo xam boote doom man dinaa man dina dinaa dinaa organiser élection yi leer dinaa bàyyi conseil constitutionnel mu def liggéeyam de toute façon mu ngi ci dara parce que conseil constitutionnel moom liggéeyam lay de waaye kii dinaa dinaa ko génne ci kaso bi mu campagne Sénégalais yi tànn man dem naa sama yoon foofu de mujjee ak ñoom parce que nag lii yëpp ñoo ko ci dugal gëmloo ko ko mais ci bi biñ koy def dañoo boole ay erreurs successives mais nag jàpp naa ne du ay erreurs parce que mbirum yàlla la parce que ku mel ni Ismaïla Madior Fall ak li mu xam ci droit yëpp ak ñi leen wër ñëpp ñuy toog di togg affaire yi di togg naan non def ko fii kar ko fii defal consultation à domicile juge bi boo ko jëlee war nga koo mën a am nga yóbbu ko fële après cour d'appel lay def nga kar ko foofu def loolu yëpp ñuy def finalement la montagne a accouché d'une petite souris. souris fan lay mujjee. mais déception totale Macky Sall xam na ne mënatul dara nag contre président Ousmane Sonko te conseil constitutionnel bu jotee dossier au président Ousmane son mm. mais parce que président Ousmane Sonko am na casier judiciaire vierge nest tey jii nii yàq bu ñu non fu ñu koy yàq jugement définitif am na léppam. lan la soxla parlementaire. waaw bu ko neexee mu jël feuille blanche bi. ci parrainage parlementaire mais sànq bëgg ko laaj sax mooy délai bi bu paasee. ban ci wàllu parrainage quoi. non mais am na parrainage am. ay amee ah, bi. waaw bu ko la wax déposé wul. Ah, na. ah ci délai yi. Ah, a xam. conseil constitutionnel dina jël dossier bi. kañ ngeen dem déposer. lan la amoo fiche lu tax amoo fiche DG moo ma ko bañ a jox. loolu question la. ah non defal ndànk ah euh, foo ko teg ah constatation huissier baa ngi nii mhm. juge bi nee na dugal leen ma ci euh, euh, liste yi jox leen ma samay fiche ñu bañ ma dem Sénat Sénat ne ah wax nañ dëgg. Mhm. nañ ko jox samay fi nañ ko jox ay fiche mhm. juge ba bañaat. dëggal euh, cendee la bañ ñaari yoon ña ngi koy jiiñante mu ngi naan daaf la xaw ma nan la tudd bajaan mm-hmm. ñoom ñëpp ñoom ñaar ñëpp naan Sidiki la problème bi yëpp nag Sidiki la ndax mooy ministre de l'intérieur absolument moo leen moo leen njaboote. pour yow ndigal li ci kaw. non mais Sidiki la parce mais Sidiki la man dama dem ba daaf. loolu ñëpp xam nañ ko man la. di laajte parce que ah, comme que ñee nee nañ waa daaf la ma dem daaf laaj. daaf nee nañ ñun service technique lañ. dañ leen di wax dugalal ñu dugal génneel ñu génn point. kon Sidiki Sidiki mooy mbir mi. te militant Sénégalais yëpp nañ ko xam. mais bu Sidiki te Sidiki. waaw mënul nekk ni moom entre guillemets droit de l'homme la international. di dox ci àq ak yelleefu doomu aadama yi. Hmm. fexe woon na fi ba jiite fi fédération international des droits de l'homme nekk kelka boo xam ne mën naa ne. en tout cas ku ku France jox tànk la. Hmm. surtout. xam yoon xam lépp walbatiku di nangu à son di gàkkal image am ci jeu de yoyo judiciaire bi nii caaxaan yi ba quelqu'un qui est son ami maître Ciré Ciré maître Ciré Clédor Ly lu ñu ko jaajëfal doyul. ndax nag ñoom. xam nañ ne comme ci jàkkaarloog ci mbirum procédure. Hmm. waxuma Sénégal mais Afrique. na la sonn <laughs> da ngay dem teer amul sa werante di nga yëg boobu. Hmm. dem pour gis ministre de l' mi barricade wu ñoom ñi barricade woon Sonko wëlbati ko di barricade seen bopp pour bañ ñu gis leen <laughs> mais c' est extrêmement grave. administration barricade wu c' est à dire Maître ak ak ay dafe ak ak huissier bi bu ñuy yéeg escalier policiers yi topp leen ñu dugg ci bureau daa euh, DST policiers yi topp leen bureau daaf fu ñu dugg policiers yi topp leen di leen gurgur daal l'essentiel mooy du ngeen jot fiche mais loolu yëpp nag li ci am solo mooy conseil na ñi ngi seetaan xam na ne juge yi jox nañu dëgg xam na ne dem nañu pour jël suñu ak ak yelleef ñee bañ nañu défier la justice nga yaakaar ne conseil constitutionnel day faral euh, administration bi au détriment de la justice de la magistrature faut même pas rêver ñoom xam nañ ko seen problème yëpp nag c'était quoi mooy bu dossier wu Sonko yegg conseil constitutionnel parce que xam nañ ne bu ñu fa yeggee ñooñu au nom de la constitution ñoom ñooy juge yoo xamante ne ni mënuñoo ñàkk a wax droit te bu ñu waxee droit Sonko dee nekk candidat moo tax ma ne Sonko est candidat d'accord et sera président. mais su ma su ma déggee nga ne Sidiki la Sidiki la il est derrière lii fi xew yëpp mooy refus refus total yëpp mais déjà sànq maa ngi lay poser question bu njëkk dama ne la combat bi kañ lay jeex nga ne ma est-ce que jeexuñ ci mais est-ce que tamit buñ jugee ci lii ndax moom Sidiki moom mooy organiser ces élections est-ce que tamit du ngeen dem bay dute ci impartialité ces élections là. non impartialité moom dafa leer. il est partisan. mais nga dama lay wax benn. ah nga. élection yàgg nañ ko sàcc ci mim réew boo déggee ñu naan non élection kenn na koo sàcc ci réew mi lu tax opposition gagné lii lu tax alternance am ndax sàcc gi dina ëpp doole bëgg-bëgg askan bi loolooy question bi. Hmm. loolu laa bëgg a mu leer. ayca expliquer ko. lii ñuy def du sàcc élection kii ne bu bokkee balaa midi affaire yi jeex nga ne du bokk loolu du sàcc élection. Hmm. nest pas. Hmm. sélection bi ñu bëgg def à travers. ay parce que dañu am benn ñoom mais Amadou Ba sax moom moo war a bañ. kan moo war a bañ. Amadou Ba moo war a bañ di. Amadou Ba. cest à di moom jàpp na ne pour mu gagner il faut ñu éliminer tous les candidats sérieux par tous les moyens Amadou Ba amul militant. ah amul responsable. ah yéen yéen a ngi invité invité leen kuy ñëw défendre Amadou Ba ba xam di ngeen ko am. Ah, ah, ñaari nit. nee na ñaari nit ñaari nit ñooy wër di ko défendre partout parce que kenn nangu koo défendre. mooy waaj a sàccoon kalewu jàmbur bi xamu nu mu tudd. Ah, Adama Fall. ak ak ak ak xam nga Sénégal bu ñu. bi naan sàcc naa nangam sàcc naa nangam nga xam ne Sénégal doy na waar. ak ak ak ak Bouna Kanté da laa gis muy góorgóorlu. ñoom ñaar. waaw jiw ba mais est gis nga benn cadre APR bu génnati toog. ana force. task force task force ana ñu. task ba amul amul parce que parce que ku la nangul demal ci plateau du la dem di wëri li parrain parrain. Mm. ay kees lañ ko indil teg rek. député su ko soo amee fit na yóbbu parrainage citoyen. 14 4 millions ah nee na am na 3 yow amoo amoo base. amoo militant moom moo ko taxawal rek. noo taxawal rek ma eh. ma ne. ma ne ma ne yow amoo base amoo militant amoo responsable amoo débatteur amoo parrainage amoo programme <laughs> nga bëgg ñu jox la réew amul programme bi moom nee na PSE lay yegg. waaw nee na continuer. déedéet askan wi bu doon loolu la kay ñu ne Macky Sall defal troisième mandat. absolument dañoo doyal sax amul programme donc waaw léegi kooku fan la mën a jaar ba gagné pour mu gagné foog ñu tënkal ko ñëpp mu mën a am benn genre boulevard. mais boobu la nax boppam. Euh. sàcc élection bi nag mooy mooy loolu mooy fexe ba yenn candidats yi du ñu bokk d' abord. Euh. mais leneen liy biaisé affaire yi encore une fois ci ci toujours ci processus électoral bi. Mmh. nangu woo joxe fichier. kam moo la mën a wax lii mooy fichier wu Sénégal. Mmh. bu weesoo ñoom. point bu solo la. mbirum boobu. fichier bi kenn mënul xam lu ci nekk. mais est-ce que loolu tamit combat la woon bu njëkk. ah mais xam nga lu tax ma lay wax problème day am foofu. Mmh. Podor la fa nekk deux cent et quelques mille votants la. ñoom ñu indi quatre cent mille euh, parrains yu jógee Podor. c'est n'importe ah, ah. incohérence. Ah, non est-ce li ma wax. <laughs> dégg répété ko répété ko. répété Podor dafa nekk deux cent et mille par euh, euh, électeurs. deux cent et quelques mille. électeurs waaw. mais ñoom. ci chiffre boo boolee li Cheikh Omar Anne indi. nee na cent quatre-vingt-seize mille. Abdoulaye Daouda Diallo la mu indi. mais moo ne quatre cent mille xaw ma. déglu rek. waaja ca poor ba la mu indi nga xam ne kenn xamu ko neen indi na cent et quelques mille euh, kii mun taga ñeneen ñu ndaw ñeeg et cetera ay satata sàll ak racine ak ñëpp ëpp na quatre cent mille waaw ban Podor lañ ko jële moo tax ñu war a xool fichier bi bu ci nekk moo tax moo tax ñu war a xool Podor et moo tax ñu war a xool fichier bi la fa nekk gis nga sàcc élection ci yooyu lay amee waxuñu ne dañu bàyyi ba jour élection bi ñu voté ba pare ma gagné bureau de vote bi ñu jël bureau de vote bi retourné ko. scrutin bi euh, kii bi processus bi. processus bi ca la ñu sàccee. déjà léegi nag bu fekkente ne def nañ sàcc yooyu noonu yëpp matul trois cent mille voix ci liñ sàcc. ci ci ci ci transfert d'électeurs yi ci ñi nga xam ne dañu jógee ci yeneen pays di ñëw di dugg di voté di demaat ak. ay affaires yooyu noonu. Mm-hmm. daal di. daal di teg daal di teggi candidat yi teg teg maas mbuub mhm. askan wi ne ñii daal moom du ma leen voté référendum la mhm. ñëw voté massivement ma maas mbuub quatre vingt pour cent mhm. sàcc ga peut être dina wàcce mambu maas mbuub ba quatre ba soixante mais day gagné <laughs> looloo tax seen yi ñu defoon fii nii yëpp terewul ñu euh, élection yi ñu perdre toutes les grandes villes mais yeneen communes rurales yi ñu sa yi ñu gagné foofu noonu parce que encore une fois xëy na représentation bureau de vote yi moom moo fa matul mais zone yi nga xam ne on est bien représenté moo tax cette fois si obligation la ci opposition bi par tous les mécanismes possibles de sécuriser les quinze mille vingt cinq bureaux de vote. mais El Malick sama question foofu la jëm ah, par rapport ak euh, situation bi mais ak taxawaayu opposition bi parce que man j'ai vu que ne lii xew ci justice Sénégal jamono ji deux fois ñu jox dëgg Ousmane Sonko. administration bañ état taxaw défier ko loolu du problème Ousmane Sonko problème de souveraineté la souveraineté judiciaire sax laa koy tuddee. Mhm. mais est-ce que taxawaayu bi aussi warul woon gën yaa ngi wax léegi fichier bi mais ci ci ci mbir mi est-ce que opposition bi sentir ngeen ne taxaw na ci. parce que gisuñu kenn la xam nga xam nga ñun li ñu mën a wax man man su may wax damay wax li nga xam ne laa gis am na ci opposition bi ñoo xam ne du ñu raté process président Ousmane ko ñi ngi bind ñi ngi wax ñi ngi dem. ñu ngi leen di invité ci ñu ngi leen di invité ñu ciy wax. am na ci ñoo xam ne xëy na ñoom dañoo choisir jël seen yoonu bopp tranquille comme non du ma fi nekk di cité kenn. c'est-à-dire que ku ci nekk. non non non du candidat ku ci nekk euh, yow yaay choisir. l'essentiel mooy <coughs> ku yaakaar ne li fi jëlee Sonko dina la fi bàyyi mooy. mooy yow xamoo di politique. Ah. mooy gone nga demal toogi. ok. qui peut le plus peut le moins Macky su ko su mënoon a réussir à écarter président Ousmane ko ku ko neexul ci bokk ci élection yi ku ko neexul laa wax day tànn yan candidat lay dem yóbbu leen ñu duma leen donc toute l'opposition sans exception dañu am intérêt malheureusement nag intérêt bi tamit dafa ah, amaat beneen problème bu ci ne mais ils ont intérêt à ce que <coughs> président Ousmane Sonko bokk ci élection yi maanaam euh, ñu ñu respecté maanaam droit ci yoon ci ci ci réew mi élection yi libre et transparente et inclusive mais bu inclusive bi ñoom duñ bokk bala nga naan naam ne fa. ne fa léegi nag bu fekkente ne dañoo jàpp ne ñoom bu inclusive tamit bu Sonko bokkee day mel ni ñoom waruñu woon bokk mais loolu nag moom birum yàlla la xanaa mais au pir des cas sax ñoom bu dee dañoo wax ne dañoo bëgg réew mi alternance am soppee su boobaa tamit ñi ci war a renoncer renoncer jàppale ñi ci war a dem tamit dàq seen wërsëg dàq seen wërsëg mais li am solo encore une fois mooy ñun waxuñu ne nañ ñu xeexal ci lu dul yoon waxuñu ni nañ ñu faral ci lu dul yoon ñun dañu wax ni droit lañ fi wax président Ousmane Sonko depuis le début dañuy yàgg a wax ne stratégie wu état mooy lépp lu muy def maanaam le pays fonctionnait en fonction du président Ousmane Sonko je vais me répéter en fonction de comment éliminer le président Ousmane Sonko. dañoo fàtte fa de soxlaay askan bi li ñuy def yëpp ci calculu nu ñu fexe ba éliminer président Ousmane Sonko musu ñoo xalaat xanaa Amadou Ba bi nga xam ne moo nekkoon patron Ousmane Sonko war na na am tuuti orgueil nag ne leen wax dëgg yàlla man ruus naa ñuy jàpp ne damaa ragal jàkkaarlook sama ndaw lii. bu muusoon nag ba réussir nag ba fexe ba Ousmane Sonko bokkul ñi indil ko poulain wu Ousmane Sonko mu duma ko yaakaar naa day génn réew. te noonu lay demee lu ci mën di am. mais li am solo mooy fii ñu toll nii. ma wax ko waxaat ko. Mm-hmm. président Sonko candidat la. Mm-hmm. te lépp lu candidature soxla am na ko et donc te nekkoon na ko deux mille dix ba muy gën a improbable. donc amul benn raison buy tere conseil constitutionnel valider candidature